la ñu jot du yoon dem ci waa FONGIP ñu dóot la nga jóge fa taañaañal hôteli waa crédit hôtelier ñu duut la encore muy ñaari dóot ndaw pikiir yu dëgër <laughs> beneen bi cour nee na loolu bu amee dafa fekk ne diggante ministère de l'économie ak du plan et de la coopération moo mag waa ministère du tourisme c'est parce que lëkkaloo da cee amul te bu ñu taxawaloon cadre institutionnel boo xam te ne nii da leen may loolu ñuy mën a def suivi boobu ak di diisoo ci yenn yi nee na lii du am beneen bi mu ne ministère yi dañoo war a liggéey de telle sorte que base de données bi nga xam ne moom ngay am ci ministère bi boo ko tappee di nga mën a xam beneen ministère lan ak lan moom moo fa am muy lëkkaloo bi nga xam ne moo war a am harmonisation justement bu war a am ci diggante ministère yi mu ne naam tegoon nañ sax ay comité de gestion mhm. normalement pour ñu mhm. xam ñan ñooy ñu éligible yan critères nañu tëral pour ñooñee ñu mën a jot li nga xam ne moom mooy financement yi mais nee na même ba ñu tegee comité de gestion yi terewut bokk na ci li nga xam ne am nañ ko ci jafe-jafe moo di ne boo xoolee jokkalante bi kii am ñaari yoon kële am ñaari yoon gis nañ fi ay agent yoo xam ne fay nañ leen ñaari yoon ci ministère de la santé mhm. am ñoo xam ne nekkuñu sax agent gaa ñi ay ambulancier ak ñoom seen ñu dugal leen gérer leen te ba ñu xoolee ba ci biir cour nee na loolu du yoon kon jotum ñaari yoon gi moom ci mbirum covid bi dafa mel ni tulleeg male pratiquement foo dem am na ñoo xam ne surtout ci ay acteurs yoo xam ne dañ leen a war a dimbali gaañu dañuy jot fii jot fole cour nag nee na fa lay balaa ma leen jox la parole nee na il faut ñu góor góorlu surtout ci lu jëm ci wàllum yaxanal suñu koppar yi nga xam ne ne daanaka bëriwul nu ñuy mën a def ba ci mbir yu ni mel dootuñu mën di ko dund ci yeneen anam yoo xam te ne nii kat ëllëg mën na am fii nii ci mim réew. boo ko defee Simon fay léegi ma cédé la place à Mame Mbaye Ndiaye ban jàngat nga ci am est-ce que tey jii nii duut fii duut fole doxal na réew. tontu bi def naa yomb na Fofana. Mhm. loolu doxalul réew. doxalul réew te li rapport bi génnee. Mhm. def foofu la ñu war a jëm mais pour man dafa am benn point bu des. rapport bi bi mu épinglé loolu yépp teg ko teg ko ci lu leer. mooy est-ce que doublon yooyu am. ñaari pàcc yi ñaari comp yi est-ce que benn bi dina dellu ca kees nga am déet. parce que bu ñu fàtte ne xaalisu Sénégal la. ñun ñëpp dañ cee cotiser. ku ci nekk dugal nga ci ku ci nekk participer nga bu doon tonti nga ne sa loxo dugg na. léegi nag est-ce que benn pàcc bi warul bi warul woon am day dem wala déet. bi dugal crédit hôtelier dugal. Mm-hmm. yow tam nga nangu ko. jàpp ne xëy na fa lay yem xëy na ñoom tam bañ koy def xalaatuñu woon ne rapport dina am dinañ ko gëstu. ba mbir mi leer. donc pour man poñ boobu tam je pense que war nañ ci mën a gindi c' est bien de faire des recommandations te di rapport bi wax man ànd naa ci. Mm. il faut que service yi mën a dugalante ba ku ci nekk xam sa morom fu mu toll lu muy def ak. et cetera et est que yow boo defee du am mm. chevauchement. oui justement. c'est clair mais est-ce que benn pàcc bi day dellu ca kees ga am déet.

cotise pas. mais mais mais mais demandez lii yëpp ci restez chez vous. Mmh. Mmh. waaw lii yëpp ci. restez chez vous. waaw affaire cour des comptes bi loolu yëpp ci. da restez chez vous. très bien non pas chez vous. est ce nga xamante ne contribué na si à 40 pour cent. Hmm. est ce que tey jii bu demandé wul ce que ñu génnee rapport yooyu est ce que ah, ah yëpp tamit. dañoo Sénégal ñoom. fu mu day xool fan la. day leer mu jaar traçabilité bi. comme nag ñun Sénégal ñun dañ naa réewu teranga la dañuy cotiser rek te teranga dina bët. Hmm. garaawul ñun dañuy cotiser rek ñuy lekk rek. mais à partir de là il serait bien que ñu continuer di am traçabilité. ci suñu ay investissement yi nga xamante ne dañ traçabilité boobu. Hmm. gox yi. xam nga opération xam nga bii rapport bi Ndiaye bëri ils se posé la question pourquoi rapport bi génn alors que am na yeneen rapport yu ñuy xaar mu génn. génn bii moo génn une clause avec le gouvernement du Sénégal que nañ ci def rapport après. xool xaalis fan c'est pas gratuit. c'est pas gratuit. Et, et, le, et, le, gouvernement a le couteau à la gorge. Ah, mais bien sûr. Ah oui. dafa am ay rapport yuy génne. waaw rapport yu dul génne. des rapports protégés des rapports non protégés. day génn nag. comme ñoo bokk si loolu ñu ne kay groupe des médias la lu koy dooree xool Yacine. en tout cas les rapports les rapports non protégés moom suñu. <laughs> mais y a des rapports protégés. y a des rapports protégés et non protégés. mooy yi génnul les non protégés mooy yi génne. mais les rapports non protégés. <laughs> rapport la rapport. non non rapport rapport la ñuy wax. rapport non protégé. Ah, rapport matinal laa wax. rapport non protégé. vous êtes responsable de ce que vous dites et pas de ce que l'on comprend. merci beaucoup tribune nee na. lu may comprendre baax yéen a kaay groupe des médias nee na leen ci kaw tribune bi. <laughs> yéen a kaay groupe na yéeg ci kaw tribune bi. ndax bugaan nee na. waaw duma magum xamoon naa ko. magum waxoon naa ko laa. tey ji yéen a bi nee na comme yéeg ngeen ci kaw tribune bi nag may leen ma nopp ma wax leen ci coowal. teer bi nga xam ne coow li bari na ci lool. njaw mi ngi wéy di si desu xambin ndax lan waa Figaro dañu def l'enquête l'enquête bi ñu mari jàpp ne kon terre bi ñun moomuñu ko terre bi ndekete yoo dañ ko abal waa Sénégal teg ko fii rek luñ ci liggéey mu dem sa France waaye nag bugaan nee na waxoon naa leen ne mbir yi luusa nga sa bëri na la ca lëndëm lool mbirum xaalis bi faw ñu leeral ko askan wi tey nag loolu moo dikkaat propriétaire du terre Abdou Ndéné Sall moom la mu wax moo di li ñu ci wax dara dara am ci teer bi Sénégal ko terre dañ waxante dëgg 100 pour cent Sénégal la ko moom am na ne sax loola toon bugaan naka yow demal nga toog bu ñu la waxee waxal. yoo koy waay waay da nga daanu saret ba. xalaat waxee waxal hmm. fi dara. qui se justifie. sex waaw qui s'excuse qui da ngay gën a suux. bu la expliqué demal nga toog. bugaan nekk demal nga toog ndax nag lii wan ne nguur gi moomu ko 100 milliards la nguur gi dugal la la ciy gagné. tous. tasar. 15 courage daal di xëddeen. maanaam jënd fukk di jaay juróom jënd jaay dërëm parce que cent milliards quinze milliards. Ah. Sénégal rek mooy jaay di perte. continuer di jaay di perte du samay kàddu de Bougane ay wax ba tey ci yéen bi plus de cinquante millions payés à deux directeurs généraux intérimaires deux directeurs généraux intérimaires yu nga xam ne nii xam na leen tey nga jël benn membre rek ne ko kaay ma dénk la bi en attendant. cinquante cinq di dem ci ay million nag dañ waxante dëgg. ci Dakar. ñoom ñooy directeur SNCF moo leen fi teg ñuy encaissé weer wu jot ñu fay leen lool ñoo xam ne amuñu xam-xam cinquante millions payés à deux directeurs généraux intérimaires inexpérimentés loolu sa xanaa bu ñu amoon xam-xam ñu ne waaw. SNCF bokk ci xëy na dafay bëgg fexe ba euh, ñooñam am expérience ci seen CV. maanaam curriculum ah, ok donc ñoom. kon xëy na loolu stage lañ doon def si pour am expérience. Ah, xëy na. ci société bu mel ni tey. waaw léegi stage bi au moins yow ndàmpaay déplacement la ñu. ah waay cinquante cinq millions. cinquante cinq millions par mois. mënul def sama demande nga dem déposé ma. daa déedéet ëpp naa def. man stage rek man baax na comme loolu ngay gën a weeru dee. non non donc stagiaire dafay fexe ba ay ñooñam. Euh, teg loxo. kon sta kon stagiaire tubaab neex na. non man il faut ma def foofu dem dem stage parce que nag dëgg neex yàlla. stagiaire tubaab kay neex na stage loolu ñu lay fay. laas quotidien wax fa dëgg neex yàlla noppi leen laas nag nee na bugaan yow noppi. ah noppi parce que nguur gi leeral na lépp. nee na taal na lamp ah, nguur gi taal na lamp yi. Ah. exploitation terre bi train express régional bi polémique bu ci amoon jàppal na kon match bi tas na. leeral nañ ko ba mu leer. Vox Populi nekk dëgg la kay. ay dóor la. Vox Populi nekk Sénégal et propriétaire de son terre. moom moom ah. moom moom suufam. Hmm. wala moo moom teer bi. mais entre guillemets la entre guillemets la. aha. <laughs> entièrement exclusivement précise le porte-parole du gouvernement. mooy wax Goro. non porte foofu foofu. Abdou Karim Fofana. foofu booy foofu mu ngoog nee na teer bi kenn saraxuñu ko yalwaanuñu ko ñaanuñu ko Sénégal la moom titre foncier Sénégal la. Vox Populi mooy wax ba tey de ñoom fu mu nekk ku nekkaa ngi wax ku nekkaa ngi génne di wax. direct news nag nee na ko nag enquête euh, euh, Figaro bi ay contre vérité nga ca maanaam wax waxeeta nga ca mm-hmm. ay wax yu nga xam ne ni ajul ngooñ benn yoon sabaru pot oh, waaw xuloo yamba <laughs> xuloo yamba kenn du yóbbu sa morom police mais dégg naa euh, Fabrice Nguema nee nañu xëy na li TER Sénégal li mu changé convention am changé partenaire bi muy liggéeyal xëy na moom métti ña ca des ba ñu génnee peut-être euh, info yu toll noonu. mais waaw mais xam nga aussi xam nga mbubu dafa rafet. Mhm. da ngay subi lii sol lii explication nii naa ne mais ñii dofuñu. ah, ah non. Mhm. génn rapport bu toll nii. Mm. journal bu mel ni Figaro. Mm. et avant ça il y a quand même une haute autorité une haute personnalité. du mm. landerneau politique sénégalais. chef d'entreprise de son état Bougane Gueye Dany boo xamante ne wax na ko donc finalement <laughs> attends on va pas quand même di jël loolu yëpp di ko sànni ci mbalit Abdou Ndéné donc am na lu xew Abdou Ndéné Sall waaw Abdou Ndéné am na lu xew Abdou Ndéné mbokkum si moo Pierre Faye sa Thiès waaw naa fa la bokk Tivaouane la dëkk ah Tivaouane la dëkk waaw région de Thiès la région de Thiès la région de Thiès la région de Thiès la Abdou Ndéné nee na beau département. région de Thiès la. Ah, waaw waaw département bu. Mhm. bu neex la quand même. directeur général bu SENTER moom Abdou Ndéné Sall nee na nañ bàyyi sabotage yi. Hmm. nee na ay bugaana yi dañuy saboter. te sabotage bi entre. nañ bàyyi sabotage yi waayi. sabotage bi entre guillemets. nee na nañ bàyyi sabotage yi waayi. même Ndéné mooy wax moo tax ñu defal ko ko entre guillemets. non non sabotage bi mot bi entre guillemets. mais sabotage yi manipulation lay bëgg a wax certainement genre yooyu. Ah, moom nag nee na terre bi. cent pour cent dafa leer. Sénégal ak moom. xanaa kon match bi tas na. mais nag kon nag rapport cour des comptes bi ñu doon wax ci traçabilité nañ ñëw ci traçabilité wan ñu kayit wi firndeel ñu. ñoo ko moom nañ wax. Ah. balay wax ji nañ génne kayit parce que waroo ay Sénégal ko moom rek. war leen yem rek ñoo moom ñoo moom ñoo moom génne leen kayit yi wan ne ñoo moom publier leen ko. Mhm. ah. publier. Abdou nee na nee na. la preuve mooy signé nañu sax contrat ak waa SETER. société d'exploitation bu donc loolu mooy firndee ne Sénégal moom moom teer bi. Ah, donc wax ji mën naa ñàkk jamono joojee ñu xool ku moom Thiès. benn dëkk ñaari gaar. Ah, ku moom Thiès. benn njëkk ñaari gaar ak benn eh, ak benn aéroport. politiquement ku moom Thiès. docteur Babacar Diop dégg naa. aéroport international moom laa bëgg a xool. Jakarta ah eh, ak téeméeri Jakarta. téeméeri arrêt Jakarta. arrêt Jakarta ana ana tribune benn dëkk ñaari gaar. ana tribune téeméeri arrêt Jakarta ak lan la noonu. ak aéroport. bu Sénégal ko rombam mu ngi noonu. avant ñu laaj ko moom Thiès docteur Babacar jóob génn na ci pataaralam gi moom boroom ayam the anglais kii euh, waay <laughs> docteur mi ci anglais yi. moom me mais moom couleuram bi dafa niroog bu awale de loolu moom réeroo am na. waa awale ñoom meuf bii la ak weex bi. docteur Babacar Diop Abdourahmane Diouf ak. ak awale ak waa kii surtout Lat Diop Lat Diop vérifié seen couleur nee na scandale bi ci war a wàllum koppar moo war a jeex ci Sénégal. waaw dafa war a jeex ci amul xaalis te nag ñun wax rek ñun on raisonne en de milliards. c'est comme si le milliard c'était ah. l'unité monétaire. du Sénégal ñun waxtuñu sax ay millions ah. ah milliards hmm, ay milliards ba pare nag ñun. ne Sénégal mu xaalis ba pare nee na harcèlement bi ci opposition bi na dakk moom docteur Babacar yan harcèlement ni ñu tegee fitna opposition bi teg leen bët di leen piis te war leen wax jàkk nee na loolu moo war a dakk yéen bi naka nag yow waroo wax yow la nga war a lijjanti mooy lijjantil Abdoulaye Dieye ma nga xam ne foqati na Cees sa loxo mi ngi nii moom Abdoulaye Dieye ana mu fii la de ah mi ngi nii face aux déclarations fracassantes les bonnes leçons de paix moom mii nee na wax fa dëgg neex yàlla gat sa gàtt sa mm. lan moo siy mujj euh, nee na moom zam-zam zam am na koo si yéen kaay nee na gàtsa gàtsa massa massa rek. massa massa zap zap ma gàtsa <laughs> nee na daal di see ñëw nee na ndekete yoo nag Thiès am na borom. Thiès ndekete borom Abdoulaye Dieng lay wuyu. le domaine du Kayor. jël na Thiès duy ko ay nit ba mu fees dee. seetal ma lii ah non nee na da ngeen di est-ce que Simon Faye Simon Faye mën na loolu. nee <laughs> na ci la jënd ay image laa gis. jënd ay image laa gis. place de France. image laa gis place de France. waaw kese. fees ak mbooloo xaw ma nag mbooloo moom fu mu joge waaw ak nu mu mbooloo woo. baa raxul import export lu mu jëmanti doon jël na Thiès duy ko ay nit ba mu fees le député du la doo fay naa leen bu na ko ay duy mu fees moom Abdoulaye Dieye waaye nag eh Habib Niang mi ngi waajal Habib Niang waaw nee na dina war mooy borom mu mm. ngi ci mobilisation ah a ñëw borom sax nee su ma génnee rek di ngeen xam ne cees ndekete ñaa la sant Habib Niang mooy wax de <laughs> Pape Malick Ndour nee na. gàtt gàtt mobilisation bi rek ñu ngi kan moo nekk fii kan moo nekk fële. waaw moom fii moom fële. te ñoo bokk benn kër. xam nga politique nag mobilisation te ñoo bokk benn kër ñu ngi xëccoo. Pape Malick Ndour mi ngi nii moom lay jëriñ ñu dénk wàllum ndaw ñu nee na gàtt gàtt boo gis. Hmm. massa massa moo say mujj. kon nanu ko waxtaanee suñu biir. waaw nanu ko waxtaanee suñu biir. ayca asma baadu kii daa jot. waaw maa ngi doon daa jot benn benn simili moo si des. te hmm? Haj Mansour Diop dikk na. ndax xibaar yi léegi mu ana ana kii ana ana Oja mi ngi noonu Oja Oumar Diakité ngi Oja anam. mi ngoog. ayca de moom de maa ma bañoon gis raay ba. moom la andi. laaj Malaw premier ministre ma nga ca raay. Tigana Malaw. yéeg waaw phase bi mooy moom nii am ah, ñoom waa <laughs> fas fas jël. fas bu gis ah, raay. Abdou Karim Fofana moo nekk nii yor montre bi. nee mm-hmm. nag heure sénégalaise pas française waaye nag li ma jaaxal be mm-hmm. kee du kii. Macron Macron moo koy dawal président bu France dañoo koy dawal. Ah? waaw te ñun ñoo moom TER bi. Hmm. Hmm? adduna ne ngi ci wet ga. léegi kee toog fee kan la. est-ce que du Mansour Faye la borom heure Mansour Faye la. heure ou heure moo toog ne. très bien kon ñoom i neen cuisine interne. parce que daal ñu ngi xippi seen i gët di xool. mi ngi ak chers auditeurs chers il est 8h pile on fait place tout de suite Coq, 8 heures passées de 1